ay waxtu képp a des ci tabaski bi waaye boo demee ci salon de couture yi tailleur nag ñu ngay def seen pint lay kantan ngir euh, jébbal seen i commande ñaw yi waaw mi ngi avancé mu ngi avancé yi gënoon difficile yëpp daanaka mat na waaw daamine yi moom ñaan na essence yi simple moo fi des rek waaw te tamit ñi waroon ñibbi Touba ay Kër Madiop ba mbay baaba garage ñëpp seen i ñëw pare nañ waa feetoo ñëpp seen i ñëw pare nañ waaw waaw sant daal waa Tëngéej ñoo des waaw ñoo ngi waaw ñoo ngi ñoom ba dimanche dimanche 5 heures si ngoon incha allah rabi am nañ yaakaar yëpp dina pare incha allah waa waaw ñaw yi nag fi toll moom seere na bu baax parce que dafa am ñoo xam dañ yéex indi seen ñaw te foog nga jël ko boo ko jëlee nag loolu nag moo lay indil problème maaye am nañ yaakaar ne nag ñaw yëpp dinañ pare à temps ba ñun ñu dem julli ji comme ñoom bu njëkk nag dañ daan nekk fii di tabaski fi lañ daan fekk mais ren daal bëgg nañ julli ji comme ñëpp rey suñu xar ca kër ga. bu ñu leen laajee yenn modèle ñoo tegu ci jamono ji. lii mooy seen tontu. waaw modèle nag bari nañ de mais heure bi moom ordinateur bi moom la gars gën a taamu daal. Hmm. yu góor yi même yu góor yi sax gars yi ordinateur 217 bi aussi lañ si gën a taamu daal. fil à fil Getzner yëpp waaw waaye yëpp daal gars ñu ngi siy góorgóorlu daal ñu si def yu rafet daal. góor ñi fil à fil jël ak euh, grand boubou Diomaye am nga président de la république boobu daal lañ ëpp luñ jël ak fil à yi nii nga xamante ni yi ak kii ord waaw ordinateur yi ordinateur yi lañ jël yaa ngi gis nii waaw yu yànj yi waaw ak brodel yi jigéen yi yëpp waa yu si bëri dafa dem mais bu demul woon yëpp naa leen ko wan incha allah. tissu yi am na tissu yi am na tissu perlage lafeyan ak brodé pirxa waa ak soit même soit même plissé yi sax ñu ngi koy ñu ngi koy pàcc ñu ngi koy mélangé ak tissu tissu tissu perlage yu rafet sax. waaw ku ci ne ku ne jigéen ku ci ne am nga ñaari ñaw da ngay xëy laal sa laal sa vaal bu baax bu añ jotee nga teg sa borodé borodi coton reer jotee nga soog a sañse tegal alaaji bi. góor bu fekkee ñun fii fi ñëw nañ fi gannaaw ba jomaay yi parce que jomaay moom dafa xew parce que moo gën a gaaw moo ñetti xob yi moo gën a gaaw parce que taf-taf nga dóor ko bu dee gannaaw bi yële ñëw bi day day rëy mais bu dee jomaay bi taf-taf parce day gàtt ak euh, kii basin yi ñu ngi si ñawlu sabadoor yi tabaski moo mel noonu tabaski léppay dox ñaw yëppay mooy dox même vax sax dafay dox Jasneer moom toujours mooy jël pay Jasneer moom toujours mooy raw Lafaya mi ngi génn mais Lafaya tabaski moom dañ ko bàyyi Jasneer daal mooy numéro un. nit ñi indi nañ seen ñaw mais indeeguñu xaalis jël seeguñ ko yow nag yaay ñëw toog di leen xaar da ngay ñëw toog di leen xaar te xamaana ñu ngay lijjanti pour ñëw mais nji tusi moom moo fi njiitu si. clients yi indi nañ ñëw mais xaalis bi ñëwagul daal. waaw mais j'espère que ne ku nekk di nga jël si sa ñëw incha allah waaw. waaw léeg-léeg nga gis nit ñëw nii nga leer que ni kii yor na tissu mais ndimbal gi koom-koom bi du demee noonu da ngay mujj ñawal ko léeg-léeg nit ñëw ñaw yi pare day ñëw ne la carrément parce que mën naa ko yóbbu ba affaire yi paase dana ko jëlal yóbbu mais léeg gis ñu gore ñu gis ñoo xam ne fa la ñuy jaaree daw bala ba fa du ñoom képp ñoo gis seen bopp ci xew mi jaaykatu tissu yi tamit du ñuy xamal ni jigéen ñi ñëw nañ bu baax jënd si ay tissus yu cher cher te am classe ngir sanse ca bésu tabaski ba. par rapport ak événement yi ñaari ñaari yi passé ak événement bii nii vraiment am na différence ñaari passé moom vraiment métti woon na si ñun trop Covid bi jaar fi ak dëkk bi ni mu demee woon mais instant bii nii moom ñu ngi sant yàlla quoi. gis nañ ci suñu bopp bu baax vraiment ren moom tane na quoi jigéen ñi jënd nañu góor yi génn nañu xaalis macha allah quoi. instant bii nii askaze bi tendance la lafiya bi mu ngi dox. Euh, ay Tinimuni ay Hadiza tout mu ngi dox bu baax jigéen ñi jënd nañu macha allah daal. jasneer mu ngi dox basé riz bi cotonnade bi tout mu ngi dox. escasé mooy tissu bu bees bi mu ngi jar paquet mu ngi jar trente cinq mille quarante cinq mille cinquante mille te jigéen ñu ngi koy jënd. waaw mu ngi dox bu baax vraiment événement bi moom gis nañ ci suñu bopp quoi par rapport ak événement yi passé ak événement bii ni am na différence. lii di firndeel ne senegale yi rawatina doomu Tëngéej ci ñu ngi ci wàccaay bi ngir def sanse ca bésu tabaski bi ngir bégal seen bopp ak seeni jegeñaale